te loolu boo dul borom mantiq doo dëkk bu nga xam ni góor ña ca ne dañuy takk seen yaay di sëy ak moom sëyu bànneex yonent bi ni moom la yàlla gën a man toléré dëkk bu nga xam ni ña fa ne dañuy ruur toolu gor seetal loolu waaye boo ko tegee ci mantiq rek gis li yonent bi wax ndax nit ki tëdd ndeyam tëraayu bànneex dafa am régal d'hygiène rek bu mu respecté wul waaw dafa am règle d'hygiène bu mu respectéwul bu mu ormalul waaw règle à la fois morale s'il le faut on peut dire bu physique ñaar yëpp am na ci la dañu ragal deret ja dara topp ko wala dañuy ragal mu xëy ñàkk kersa te ko garaaw na mais am na lu ko gën a garaaw li ko gën a garaaw moom la yonent bi tudd foofu mooy nit kuy ruur toolu liberté loolu boo ko bëggee firi ci mantan dangay dendale alal yi alal yi danga leen di hiérarchiser mais alal yépp dañu am sang seen sang mooy liberté te yi ci des yépp boo ci def usure te mooy riba boo ci def riba dañuy seet naka la valeuru alal ja toll noonu lañuy ñuy jàppe bi mais ki nga xam ni dafay tëdd ndeyam tëraay bànneex dafa am règle d'hygiène rek bu mu ormaalul te kooku bàkkaar bi ci boppam lay yem mais ki nga xam ni dafa yàlla daf ko xool mu dend ak nawleem yàlla may ko ci alal lu mu mayul nawle bi mi ngi dend ak nawleem yàlla may ko wéru yaram bu mu mayul nawle bi mi ngi dend ak nawleem yàlla may ko baat ci pinc mi bu mu mayul nawle bi <coughs> te yàlla moom mu wóor ko ni kii gënul nawle bi te mu xañ ko ñett yi may ko kii kooku dëgg ci loolu xëy benn bés rekk sol baxam jabar ji indi cuuraay suur ko mu ndékki ndékkeem walla bu dee sol costume ñu indil ko cravate am jox ko haute cologne bu légère mu jékki jëkk xàqataay mook jabar ji rekk ni ko e gis nga diw tudd nit mara day tànn bu ko defee ñu joxe instruction ni yiw wuñ ko mës a dencal ci kaw asamaan nañ ko consigné pour faye ko gor googu la mu dal ci kaw looloo tax mais yonent bi ni muy waxe la kenn mënul ndax taxi bi mi ngi wax ni ahwanu riba kalladi yankixu umma wa inna arba riba istitaalatul mara fi irdil ax seetal loolu seetal loolu yàlla boole yu baax yépp may la nga tudd benn gor rekk mu nangu yëpp dem faye ko ko kooku dañ koy jàppe dof kooku dañ koy jàppe dof lu mu sàggane bi liñ ko dencaloon fii ci kaw asamaan ñu dem faye ko din seetal loolu waaye kële dafa am rek règle d'hygiène boo boo boo ormalul waaw ñu ragal mu jur dara ci sa deret ragal mu jur dara ci sa kersa et puis surtout c'est grave mais c'est pas aussi grave bu l'autre c'est loolu loolu moo tax euh, Aflaatoon li mu wax am na solo dafay artu nit ñi ci bañ a bew mais itam dafa am lu ma ca gis lu ma jaaxal parce que loolu sax moo tax taalibeem yi séddaliku am na ñu séddaliko ñetti xaaj ñetti groupe groupe bële wax ni ñoom gëm nañu ni benn prêtre égyptien moo ko wax Aflaton mais groupe ñaarel ñom bi ñoom gëmuñu loolu dañu ni mo créer personnage parce que xam-xamam àgg na ci te dafa sukkandiku ci al madal khatabiyya na ko ndax imam Hariri li ci maqamat yi yëpp nekkul li ci maqaamaat yi nekkul mais mo créer personnage ba moo taxoon Serigne Cheybatu ñu di ko wooyee Abou Zeyd parce que Abou Zeyd mooy personnage bu principal bi ci wàllu Imam Hariri ñaari group groupe bu ñaareel bi ni daal benn prêtre égyptien waxu ko ko moom moo ko taalif pour wattandikuloo nit ñi mbewte parce que boobu nit ñi àgg na ci mbewte fu nga xam ne ëpp na mais groupe bu ñetteel bi nag moo ub sambo te ñëw na ci encyclopédie yi traité affaire affaire yu mel noonu indi nañu euh, groupe bu ñetteel bi nga xam ni ñoom affaire u mit rek mooy seen liggéey ñoom ñu ni anticipation ndax bi ñu découvrir Amérique la gis ni Amérique mooy Atlantide et gànnaay du leen not mukk anasir yeneen di not yàlla mooy groupe bu ñetteel bi loolu la ñu wax ma ni ñoom de américains yi duñ leen dëkkee suba wax dëgg yàlla pour wax la rek ni béw a yées ci kër mooy yées ci dëkk mooy yées ci réew waaw loolu ma ba baaxul baaxul béw baaxul mukk xàqataay tàpp sa jabar tudd gor baaxul xàqataay suba tap pa su se jabar tuddu gor lo denchon ci yiw ci kaw dañ ko koy fay jànn baxul loolu baxul fata yonent bi waxe non wa ahwanu riba kalladi yankixuuma nikaaxul umm cheyun hayin waa boo ko dendalee ak li walen dendale ke da fay nek shay'un hayyin la chak waaw ba tax kon

te li nuy ñaan ñun ñépp mooy yàlla musal nu ci safar di ñaan rek mu yóbbu na ci aljanna jana waaw dëgg-dëgg ñun ñépp moom la ñaan waaye Tijaan dafay wax ni nee na dekki yem ca ka yaakaar nee na te du ëppal nee na moo lay won foofa na mu mel parce que bu fekkee danga dekk yem ci ki nga yaakaar bu doon barab bu ñuy ëppale da fecc bu doon barab bu ñuy ëppale dangay fecc waaye nee na foofa la nga fay def li mu ëppe muuñ barewul waaw ndax foofa mesure rekk a fa am moo tax muy ñaanal bépp ku mu bokkal tariqa moom tijaani képp koo xam ni boo nee tëll seen kanamu abul abbas nee na kan nga ja ngay def la yal nu ci yàlla boole moo ko wax wa man bi abil abbas yadxaku seetal loolu wa man bi abil abbas yadxaku wa man bi abil abbas yadxaku يوم لا ترى الناس إلا بين باك وحق ومن بأبي العباس يضحك يوم لا ترى الناس إلا بين باك وضاحك ممن كنك لنك من أمتي أدنى am kilifa gu baax a te loolu mooy ndono li su ko defee ñu di ko jàppe noonu ah, ndax nu it amuñu ludul ndaw yi te ndaw yi itam li yàlla wax ci ñoom rek moo nekk ci ñoom sellal na leen ba ku leen dimbale ñu dem waaye boo jàddalee nag sa sa euh, defin du baax soo jàddalee sa defeen rek du baax moo tax ku ci yàlla jox ndaw rek nga xam foo koy jaarale te itam méthode Ibnu Achir bi comme Maodo nee na am na solo ñu di ko bàyyi xel ne bala ngaa jàngal xaleel tiim jàngal ko ku yàlla ba noppi parce que dina ko xam dina ko xam ndax xale ya doon jàngal euh, ñaanal yonent bi pour ñu denc ko ñépp jombi ci seen wàll ndax lañu wax mag ñu waxuñu ko seetal loolu seetal loolu ay xale lañu euh, Haroun Rachid dafa amoon benn aada bu muy def mooy anniversaire am bu ñëwee dafay tànn lu xale yi nga xam ni doomu borom barke lañu ñu ñëw ca fête Euh, su ñu ñëwee nag benn espèce xam nga dafa tëxatoon te xaalisu lislaam yépp moo ko lekk te ci bakkan rek la ko lekk Rachid kenn xamul affaire am waaw xaritu Charlemagne la woon benn bakkan bu ko defee xale yi kenn ku ne sa papa daf lay solal pour bëgg nga dàqale sa morom te boobu sax baaxul parce dafa jur kujj ci seen biir dafay teel jur kujj ci seen biir te baaxul bu ko defee xale yi seen papa dañuy dàqalante sañse buñ ñëwee ci pale bi moom mi ngi toog ci trône bi dañuy rangale xale yi kenn ku ne sa papa taxaw ci sa gannaaw xam nga yooyu itam yàq la ba am benn bés rek am xale bu ñëw àndul ak papa ndeke papaam dafa gaañu moom rek a ànd waaye solal nañ ko boo mel ni doomu buur ndeke yaayam a ko fexe ndax bëgg lii deñ xale ba rek ñëw taxaw Rachida ngi toog ci trône bi gis xale bi àndul ak kenn loolu jaaxal ko ba àndatul ak sago mu daal di jóge ci trône bi ñëw taxaw ci kanamu xale bi ni ko yaay doomu kan mu ni ko mën a doomu xàmme mu ni ko ëskay sa askan mu ni ko ëskay sa askan ni ko nit kenn du ko natt fa mu facce waaw ñu ngi koy natt ca la mu def waaw daal ni koy tagg ndeke yaay jee ko fexe pour ñu bañ a waxati ni doomu borom barke parce que doom yëpp doomu borom barke lañ waaw ba ca lañ ko bàyyee bu ñuy def feet ji rek ku ñu yem ci yow indi waaw amul wujjanteeti amul sañseeti amul dara seetal loolu waaw xaleel am na solo waaw dafa jommi te dafa rus waaw ñu ko Anta ibnu man mu di ko ibnu Adab ونكون نعم النسب الذي انتسبت إليه نح نعم، المرء بفضلته لا بفصلته وبحسبه لا بنسبه وبكماله لا بجماله ولا ليس ستلل بروح لني خلل أم نصلو خلل أم نصلو ودفن يدلين دي مليتي بوال نحن نجيجي يالا نجيجي يالا لولا نفلرق tabarkan la waaye am na ñoo xam ne dañuy tax xale kenn du ko mën jariñoo ndax dañ koy saaga dañ koy saaga di ko maltraité te baaxul la baaxul mukk baaxul xanaa ñu bàyyi ci xel rek ndax itam ñoo fi nekk di ay yaakaar ñoo fi nekk di ay yaakaar te tabarkalla tabarkalla ah ay soppe lañu ñu bàyyi leen xel ci wàllu googu mu mel ni kon loolu nag xam naa dama ne woon rek bés bi moom bésu yonent bi la guddi gi guddeem la te itam rek moom rek la ñu am te itam nag lu nu yàq itam moom moo koy jëng lu nu yàq moo koy defar waaw ah, nuy nuy dal ci sunu kaw nag di di xas sunu kaw ba mu dégg ko baax na de waaw dina xam ni kon xam na lu di mu nu defal waaw bu nu nee nun jubuñu dina xam ni kon xam nañu li mu nu defal parce que jubuñu nag waaw li nu def ci échec kenn xamul na mu toll li ñu def ci échec kenn xamul na mu toll échec yi nañ ko nangu bu dee ci cadre àdd nañ ko nangu bu dee ci cadre diine nañ ko nangu bu dee ci cadre tariqaat politique nañ ko nangu bu ko defee rek yàlla dina woyofal waaye bu ñu defee échec ba noppi di rëy gémmi ah kooku yàlla dafay daal ci suñu ko kooku amul sax werante ba tax na lool rek mooy li nga xam ni moo fi nekk te yàlla jox nu ci kilifa goo xam ni nag kenn gënu ko ci kaw suuf muy seen Babacar Sy waaw moom la yaakaar ci biir yaakaar ko ci biti mënu ci yi ñuy def itam tabaarkalla tabaarkalla tabaarkalla waaw loolu rek mooy li nga xam ni moo fi nekk mag ñi àndoon nag moom it kenn du leen fàtte bala nga koo xam nga voyage kuñ la mën a tuddal boo toogee moom waxtu danga koy ñawant ndax dangay xam ni kii ñorul nga xam ni kii ñorul yàlla xam na ko man kuñ ma ci tudd bu ma toogee yow waxtu xam ni ñoruloo te kii tax ma xam ko benn borom kaala la bu sell boo xam ne du tuura sa lit ko lañ parce que set lay xeeñ set set ndox lay xeeñ set waaw loolu la yàlla dogal ku ci ne sol sa mbaxane rek simple bu dee Serigne Alioune Gueye bu dee Serigne Cheybatu rawatina Serigne Cheybatu moom kenn du moom tabarkalla te dafa dëgër fit boole ci ñooñu ñoo amee adduna bi ñoo amee alaxira ji ça il faut le dire hmm. bu ko defee yooyu di héritage boo xam ni dafay dellu ci daayira bi ah, daayira boo ko xasee tudde Serigne Babacar nag ah la yiw rek nga cay yaakaar. doo ca yaakaar leneen kon nag yiw wiñ ci yaakaar yal na nu ko yàlla defal ci barke yonent bi tabarkàlla tabarkàlla ñu nu ko bokkal itam yàlla di leen gën a dëgëral te yàlla defal leen fatlu ci seen barke maam yu baax yi yàlla fexe fexe fexe ba seen bëgg-bëgg yépp mu defal leen ko moo xam góor lañu moo xam jigéen lañu moo xam sët lañu moo xam ay xarit lañu ñoom ñëpp yàlla defal leen seen bëgg-bëgg boo ko defee ci biir loolu itam réew mi ba mu daj yàlla dafa leen jàmm te yàlla itam antul ndax yomb na ko yàlla itam antul li fi góor yi jiw yëpp ci jiw yàlla saxal ko te ñu mën ko jariñoo tabarkalla tabarkalla ah li ci des nag yéen rek la ñu am sangu daar yi gannaaw ba ngeen passé suñu mbokki politique yi rek lañu am ñoom ñëpp suñu wëllëre la barki démb laa koy wax Ablaye Wade ma ni ko 1960 laa ànd ak yow ba ren ma ni ko nag jàmbaar la ndax ma su ma fàttaliku fu ñu la poussé ci sama kaw ba nga dal ci sama kaw seetal loolu te yàgg na 60 ba léegi ñi ci des ñëpp samay doom lañu ñëpp maa leen jur ci politique maa leen jur ci àq yàlla xam na ko ba tax na kon nag nanu seet rek na mu gën rafete ñu defe noonu du dëgg parce que itam nag ah, àdduna bi nee ñu bopp du ko yenu nee ñu xel rek koy yenu ak pas-pas walaay ndeysaan waaye bopp du ko yenu mu ko defee rek nu seet nag la noonu defee na mu gën baaxee rek nu tëralee noonu defee noonu te dénk ko kilifa yu baax yi waaw ko kilifa yu baax yi dénk ko kilifa yu baax yi loolu noonu rek la Lamine Gueye daf ma ni président Lamine Gueye daf ma ni man lenn rek laa lay reproché muy góor gi doon na dundi téeméeri at waaye dafa am loo ormaalul ci wàllam mooy danga ko waroon di nangu boo ko abalee nit ñi juróom benni weer nangu ko juróom benni weer wuti foo ko nëbb jox ko téere ba mu gën a bëgg jox ko bindukaay ba mu gën a bëgg ba mu matati juróom benni weer nga jël ko joxaat ko nit ñi mu ne ma waaye bàyyi ko nit ñi rek ma ne ko kaay ma wax la nag dafa am loo réeree tuuti ma ne ko gis nga bukki dafa feebar tëdd ndeysaan ñu romb ko ni ko waaw lan la mu ne asaw bi rey métti ñu ni ko loolu lekk ba muy métti mu ni sump ñu ni ko lu koy faj mu ni sump ma ni ko waaye moom itam régal d'hygiène am mooy nit ñi ah ma ni ko régal d'hygiène am mooy nit ñi ah fa sha'nu rijalillahi hamlu adal wara kada fal yakun man lil ilahi tasaddara ma ne ko loolu la mu ne ah boobu de xaw ma ko mu ne moo ne doom nu am na jaas lëf bien que politique la ñuy def ñu nit ku ci nangu lañ eh, yenn loru nit ñi rek muy musiba walaay ndeysaan ñu waxtaane ko noonu waaye fekk na ñoom li ñu nangu ci nun moo nu fi bàyyi tabarkalla tabarkalla yal yenn fi yàlla bàyyi seen leer lu di ko jariñoo ci biir di ko jariñoo ci biti di ko jariñoo ci biir di ko jariñoo ci biti tabarkalla ñi ci xale yu ndaw yàlla màggal leen ci te yàlla musal leen te musal nu loolu yëpp ñu ñaan yàlla defal nu ko tabarkalla tabarkalla ah xam naa am na ku ma bindoon nag ni ma rek bu ma sañoon ñu may ma rek ma way tuuti ah, loolu kenn du ko bañ tabarkalla li kenn du ko bañ xam naa bu bu fi jegee rek ñu may ko ko boo hmm. defee ñu soog a mottali waxtaan waaye ñu fi toog ñëpp tabarkalla la noo bokk ndono li yàlla ngi fi indi sama mbokki bopp boobu nag dama koy beral tabarkalla tabarkalla Serigne Alioune yàlla dogal moo ki yéen ñii yéen bokk lépp waaw waxuma sax deretu démb ja waxuma deretu démb ja de waaye ñooro ja rek jar na lu ne waaw waxuma deretu démb de waaw waaye ñooro ja rek jar na lu ne waaw te sëriñ Mouhamad Fadil Mbakke daf ma ni réew mi réew mu doy waar mu ni ma ndax sama diggante ak sa papa bu rattaxee benn tubaab a ko rattaxal seetal lool ak ni fi jullit yi bare mu ni ma gouverneur du Sénégal moo ci waxtaan ak man sérieusement ni ma ndax miinante nga ak sëñ Babacar Si ma ni ko déedéet mu ni ma fexeel ba miinante moom mune ma ca ndar la ko wax ni ma du yaangi dem ma ni maniko amune ma jaaril tiwaawan nga gis ko ngeen waxta ak jamono gi ñew bu nga xam su ngeen andul nek ben aduna bi toj ne ma rek fekk sama bop ci seigne Babacar si waaw musuma gis lu mel nonu mukk mu nekk wëllëre boo xam ne lépp lu sëñ Babacar di def dana mën a téléphoner sa Pape Fallou wax ko seetal loolu seetal loolu nit ñi xamuñu sax li xew lan li xew xamuñu ko mukk Serigne Cheikh Mbacke bi ñu mujjee gisee maag moom ca almadina yàlla xam na ko fekk mu yónnee ni dinaa ko seeti ci guddi ma xaar ko ca guddi mu ñëw fi ma nekk amul làmp eh, benn làmp tempête rekk a fa nekk ci guddi gi ma taal ko amul it fauteuil banc moo fa nekk te def naa fa ñaar fukki ak juróom waaw amul fauteuil amul làmp amul courant waaw làmp tempête dafa nekk mu ñëw ci guddi waaw mu ni ma wax looy def fii li ma gis nga nit genn wàllam la moom ba genn wàll ba ca des bokkam moo ko parce que fii baaxul fii amul lam te ba noppi jaan yaa ngi di di doxantu nga ni def nga fi ñaar fukki at ak juróom ma ni ko def naa fi ñaar fukki at ak juróom mu ne mbaa am na robinet boog ma ni ko déedéet ma ni ko teen la noo am teen baa ngi fii ci pantere bi ndeysaan mu triste lool ni ma dama bëggoon nga may ma mu yónnee si la équipe mu defaral la boog miir yi ndax gelaw li bañ di ñëw ci ndax da nga xiiboon waaw ma ni ko ah bu ma ko moomoon de ni la waaw waaye tubaab yee ko moom nag mun ma tubaab yee ko ma ne ko waaw yi ñoo ko moom ndeysaan soog a xam ni nag nekk la ma fay nekk yëpp tubaab yee ko tabarkalla la waaye terewul ñu am fa sunu teen am fa suñu làmpu tàmpet am fa suñu ndis ndis googu fa la mag ñëpp daan defar ci seen réunion ñaari weer yu ne dinaa leen may ñu ñëw fa seet si ma ànd ak Amadou Lamine Dieng dégg ànd ak Mor Sène Mbass dégg ànd ak Thierno Amath Mbengue dégg ànd ak Aliou Yagg Diagne dégg nga ànd ak Aman Bay Mintile dégg nga ah dégg nga ànd ak Youssou Mbargane Diop dégg ñoom ñëpp fa lañ ma daan fen kenn ci mag ñi du ko wuti nu wax waxi ndakaaru ba mu jeex takk yàlla xam na ko lañ daan def waaye bu ñu ñëwee ñoom ñëpp ci suuf la ñuy toog ci ndes gi lañuy toog ñoom ñëpp parce que chaise amu fa dara amu fa ndes rek fa am ak banque boo xam ne ci jamono Faidherbe la woon yàlla xam na ko te def naa fa ñaar fukki at juróom loolu rek jaan yi dañu daan dàq nu daw wuti géej ga yàlla xam na ko pour wax la ni taalibe taalibe rek la waaw moom taalibe bañul dara amuñu fa robinet mais am nañ fa teen teen bu baax sax waaw yàlla xam na ko moo tax bu nit ñiy wax damay reeloo walla yàlla xam na ko dafa benn tubaab. bu ñu wax Colombani moo fi nekkoon gouverneur de la circonscription ba muy dem mu ni ma demal la bëggoon may loo dul maye ma ne ko lan mu ne ba terrain ma ni ah, loolu sañuloo ko parce que man aw amul lu ma jënde terrain boo ma mayee kay ma sant yàlla mu dem won ma fam ma may dindi kayit yëpp jox ma ko yàlla xam na ko fekk Euh, euh, état français dañ ko jox benn kaamil bu mucc ayib ni ko na ko jox sëñ Babacar Sy mu jox ko sëñ Babacar Sy ma ñaan ko ko mu may ma ko ba tey moom laa amee di ci jàng alxuraan yàlla xam na ko ndeysaan loolu nekk wëllëre sama diggante ak moom mu may ma terrain ba nag dindi kayit yëpp defar ko jox yàlla ate ma naan ëllëg gannaaw ëllëg ëllëg gannaaw ëllëg ñu bari sax di ma yedd yow sa terrain bi nu mu baaxee doo ko toppatoo nangam nangam ma ni maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw ba rekk ñu soow ma mayit ma xundu rek ni maa ngay dem liggéeyi ko ñëw fekk ku ma ëpp si di ko liggéey <laughs> wallaay ndeysaan fekk ku ma ëpp te wuuf di ko liggéey ma laaj ko ñu wax ma ko muy góor goo amul morom ma ne ko nag nañ ko bàyyi wallaahi ndax sax ndax ëpp ma ko ci cër kon nag bu ko gën tudde si sax nañ ko xam na ko day sax ah loolu du yoon defal demande ñu jox la beneen feneen bopp moo gën ma def demande bi ah, ñu naan ma tey ñëwal seet ko ñëwal seet ko ma ni maa ngi ñëw lu ma juróom benn weer maa ngi ñëw kaay seet ko maa ngi ñëw kaay seet ko maa ngi ñëw ba xëy jàpp ci yàlla rek ànd ak Ousmane Cissé ñu dem ma seeti ko ma ne ah fii baax na di fii baax na lool ñu ne kon nag gaaw ci ma ne naa ci gaaw maa ngi ñëw naa ci gaaw maa ngi ñëw ba dem fa fekk keneen di ko liggéey <laughs> ma laaj kan la ñu wax ma ko muy góor gu rëy ma ne bu ko kenn tuddati bu naa wax sax tabarkalla tabarkalla waaw ah, pour wax la ni noonu la réew mi mel kenn ku nekk sa mbokk a ngi fi tabarkal tabarkal te doo ko baax loolu rek mooy li nga xam ne moo ci ne tabarkal waaye ba léegi Colombani kayit yi ma daan jox mi man yàlla xam na ko ku baax a baax la dama gént sax bés gis ko mu ànd ak sëñ Babacar Si yàlla xam na ko te yonent bi waxoon na ni di ngeen di gàggantiku ji ci gént ci mujj jamono wax na ko ma gént gis ko sëñ Babacar it ngi indi indi gàmmam ci course dëgg yàlla bu ma gisee ak yonent yi nag wi béjjën yi lonkul dafa tàllalu waaw waaye moo ko téyel boppam gis naa ci mbooloo mi sëriñ sëriñ njóoba jóob waaw ndeysaan wallaay mi ngi yaru gis naa ko ci ma gis ci Colombani ñi ànd ak moom lu ma fukki nit a ngi ànd ak moom ma gis ci Colombani ma xam ne rek ku baax la yàlla xam na ko pour wax la ni yooyoo fi nekk yooyoo fi nekk leneen nekku fi hmm, yooyu moo fi nekk tabarkalla tabarkalla ah te mu ngi ci seen disposition walillahi mirasu samawati wal ard ah yonent bi jël ko ci loxoom ah te cheikh lañ ci am te cheikh lañ ci am cheikh nag xatati nuuril mutalsam waaw ah, looloo tax ndax sëñ Babacar dafa daan wax ni observatoire la seetal yonent bi li muy jóge ak tab yi xam xaqiqam tegaguñ ci seen bët seetal loolu aktaab yépp ba ñu daj tegaguñu seen bët ci alxaqiqatul muhammadiya waaw te waxtu wu ne ñu nga ca observatoire ba di seet la ko wër seetal loolu seetal loolu nuurun axata bihi l anwaaru xaajibatan an il xaqiqati kull al loolu moo tax kii kiñ ci am tabarkalla kiñ ci am doy na wétal sëkk sëkk sëkk doy na wétal sëkk yàlla xam na ko mu ngi tolloog nag ku ne yaa yar sa bopp ku la ni maa yar di waxul dëgg ku ne yaa yar sa bopp ku nekk yaa yar sa bopp mas naa koy waxtaani bés ndax sëñ Babacar ma ni sa papa Serigne Bachirou Mbacke daf ma wax ca ndar ni ma barke jaaxaan yii mooy tasi réew mi barke jaaxaan de xam nga barke dëgg-dëgg amul ah, barke coow rekk fi nekk ne barke dëgg-dëgg amul parce que barke du ànd ak coow mu ni ma te loolu ni mu nekkee sax dafa ëpp sëñ Babacar wax ma ko ci làmmiñam am benn bés sama bàyyi bu am solo ci man mooy Alaaji Ibrahima Niass yéen ñëpp xam ngeen ko ci xam ngeen loolu ci moom mu ñëw seet si ma jënd Tiwaawan yàlla xam na ko ni ma man miinuma sa waaye dama ñëw tey pour fasanteeg moom wóllëre ngir yàlla ak sa jëmm ni ma ndax nit boo gisee njabootam di nga xam fu yitteem toll waaw nii la ma ko waxee soxnaa sukkan jóg ni ko ah, danga xam ni kër gi sa kër la doom bi sa doom la moo tax nga ñëw fi wallaay ndeysaan mu bëgg lool ba mu gis nga nit ñi yi ñuy def yëpp ay enfantillage maa la ko wax keroog waxtaane nañu lii ma ne ko sëñ Babacar nee na sëriñ Bachir nee na barke caaxaan yi mooy tasi mu ni ma doom ana barke sax mu ni barke boo xam ni mag a koy dox ba bëgg dee wax ko ba bëgg a dee te ka koy jëriñ doo xam kana ka koy jëriñoo doo xam kana seetal loolu seetal loolu muy li Maodo waxoon ni barkeeg musiba du benn ne nun li nu nekk musiba la waaye du barke waaye tey koo gis ma nga bëgg barke loo defe ni loolu barke la te musiba la waaw ndax xaaji Maxtaar Caam nee na yéen bu la yàlla yenul ne ceetaan may jëga tay waaw te wax na dëgg su ko defee rek barke caaxaan yooyu rek ñu bàyyi ko fële waaw te rek def li nga xam ne mooy xaqiqa bi parce que xaqiqa bi rek moo am solo yi ci des yëpp fu yu fayal yi ci des yëpp fu yu fayal te nag ah ku taxaw rek yalla mën na la dundal te li nit ñi soowoo yeb ya pour dund rek la passé wu ko waaw loolu rek moy li nga xam ni moo ci nek barke jaxan dal baaxul te mag ñep xam nañ ni barke na nek ci réew bu ko defé kenn ku ne di la ñaanal ni la yel na barke bi sax te fekk du barke musiba rek la tabarkal tabarkal la moy li ci ne ni ma ko xamee ni ma ko xamee moo tax bés bu ne samay waajur dañ ma naan danga gàttañ gàttañ fekk gàttañ lu ma dama xam ne dara nekku fa tus ko wax maa ko wax waaye nag ah soppe jar na lu nekk soppe nag jar na lu nekk moo tax sëñ Babacar mi ma ah bu ñuy wax àddiyee ju araam diggante taalibe ak sëriñ la waaye diggante soppeek soppe nag xaj na fa gàllaaj la fa sax tabarkalla mu ne ma gàllaaj piir la fa te lu mel noonu jële naa ko ci mag ñu bare mag ñi ma gënoon a miin te yàlla dogal ma miin leen muy xaaji Bekaay Sekk bu Ndar ak maam Abdou Cissé bu Pire maam Abdou Cissé li ma xam ci moom xaaji Moustapha Cissé xamu ko laaj ko ko laaj ko ko bu ma mas masaan ñëw rek soxna si ni ma demal seeti sa maam Abdou Cissé ma ñëw fekk ko ci piliyaan ba mu ŋàbb jukki alxuraan waaw te dafa rafet góor gu rafet bu ko defee ma ñëw mu ne ma yàngoog ma ne ko ma ne ko ah soxna si ne danga ma tëf li rek ma dem ma daal di sëgg mu euh, ëf ci bopp ma daal di jëlaat saxaar gi ci des rek dem ba ci bu mujj ba mu ne ma tey dama lay téye nga fanaan ma ne ko kon dañ may yëg may ma rek fii tëflil ma ma dem mu raay ma ci bopp yëkkati benn cawti may ma ko li ma bokk mënul denc dénku ko sa papa góor gi Abdou Cissé ni ma ko miine woon miinewu ma ko kenn waaw te daf ma soppoon bu moob ma ñëw dénk cawdi ba sëñ Babacar si ma ni ko naka la cawdi tudd ca arab mu ni ma al zummatu al zumma bi ma ko wax waaw seetal loolu booba laa xam ne tàggoo la woon loolu allah jëma siise rek ko dunda keroog bi may tàggu si Moustapha Cissé laaj ko ko dafa tiit ndax dafa war na ni papaam dina wér waaye naka la waxtaan ak man ci kanamam rek mu commencé perdre contrôle wallaay ndeysaan ah moo tax yii nit ñiy def yëpp enfantillage laa ko jàppe yàlla xam na ko Qutbi Ukaasha Qutbi Ukaasha waaw boogu loolu rek la bu ko defee rek yooyu moo fi des nag yi ci des yëpp yi ci des yëpp yi ci des yëpp fu yu faye rek waaw yan bu la yàlla yenul ceetaan may jëga tey yan bu la yàlla yenul ceetaan may jëga tey loolu rek la yonent bi itam mënul fexe ba yàlla autorisé ko mu dellu démb te tey kuy tiitaru démb ngay tiitaru te yonent bi mënul am mukk yàlla autorisé ko mu dellu démb te tey kuy tiitaru démb ngay tiitaru waaw ah. seetal loolu loolu fu mu jëm loolu fu mu jëm loolu loolu loolu fu mu jëm baaxul de loolu fu mu jëm baaxul maa la ko wax ah sëriñ Abdoulaye daf ma ni cheikh ma ni ko am ah, mu ni ma toppatool affaire u archive seetal ñii rekk li ñu xalaat ni ma ndax def ci bari yuñ ci def te jubul mu ni ma te danaa la abal sax ay copie lettre yoo xam ni ci sa papa lu jóge mooy bi ñu tegee loxo sa maam Cheikh Anta réaction yom ca def moo tax ñu teggi seen loxo ñoom tubaab yi mu ni ma demoon nañu ba defe ni sëñ Babacar dana boole tariqa yi fi nekk yëpp xarit tubaab yi fekk bàyyiwuñu sa maam Cheikh doon na ko def mu ni ma naa la yónnee copie lettre yi ñu ci bind ni ma waaye na nga toppatoo affaire u archive ma ni ko ñaari at a ngi ciy liggéey ñaari at mu ni ma ko ci collaborer ma ni ko Umar Ba sa mos ma ne ko laaj ko ko ma ne ko téere bi mu ci bind ci maam Serigne Touba maa ko jëkk a liir mosu koy édité ma ne ko maa su ci bopp ba tey man kay nag xam naa li may def lan la waaye keroog dafa bëgg bëgg bëgg ba nga ni li lu mu doon ni ma waxal xale yi ñu am yitte ah. waaw waxal xale yi ñu am yitte yi ñu am yitte mu ni ma ndax mi baaxul mu ni ma gis nga euh, euh, euh, kii maal bële ay lettre anonyme rek a ci ne lu ne ñu yàkk ma ko ay lettre anonyme rek ne bu ñu ma bëggee xas dañ ma naan fàlli loolu gën mës nga gis ko nit nga naan ko sa kilifa la gën foog ko ma si wallaay ndeysaan mu li ma ko wax loolu kenn mës ko gis am na bés ñuy waxtaan alaaj njuga kebeer ngi toog ndax moom sama wëllëre la woon bu rëy ma wax la ko yàlla dogal ndeysaan dama ko daan wax ndakaaru ñett ci gën a dégg tubaab mu ne ma ñaan ma ni ko yow ak xaaji baabu ak man ndax tubaab bi tirailleur rek la nuy làkk waaw yàlla xam na ko bu ko defee dafay ree ba daanu ci suuf waaye fu ma gis daf ma naan discrétion de réew mi baaxul alañ jóg a fu ma gis ni ma discrétion de réew mi baaxul réew mi baaxul mukk mukk mukk mukk ba bi ñu mujjee gisee tabarkalla tabarkalla benn nit boo xam ne daf ko tooñ ba ñu dem ci yoon kooka daw seeti Abdou juuf ñu ko dimbale ma waxal ma ju euh, Alaaji Njuga mu baal ma mu ne ko mënuma ko ndax affaire justice dugg na ci ba noppi te chef justice bi waaye gis naa koo xam ne boo ko waxoon léegi mu réglé la ko muy Serigne Cheikh te dana fi ñëw tey bu ñëwee ma waxal la ko ma ñëw rek mu wax ma affaire bi ma ne ko su may génn di laajte Alaaji Njuga pour mu réglé ko naka la génn laajte ko ñu ne ma dafa voyagé waaye Ousmane a fi nekk ma ne ah Ousmane de moom sama doomu ndey la nañ ma ko indil Ousmane ñëw ma wax ko ko mu ni ma sa doom bee ko amee di sa xarit Mame Bassine Niang moo amee dossier ba. ma ne ko kon léegi ma woo mu ñëw rek lépp yàlla agsi fi ñu koy waxee rek ndeke ñu nga ñëw la ay ndeysaan mu dal di waxu ñëw ni ma nan la woon ma wax ko ko mu ni ma dossier baa nga ne la loo ca def rek d'accord naa ci waaw loo ca def ndax moom sama goro la ndax duma leen ko nëbb ndax xay ki mu doon denc yaayam lañ ma jëkk a proposé comme jabar bu dul woon sama voyage bu yàgg ba peut kon takk naa ko bu yàgg yàlla xam na ko ah waaye bu ko defee nit ki du xam sax lu xew ñu nekk fii di wax ak di tappale lu ne nit ci ah, waay loolu kenn mësu koo gis wàjji ah loolu kenn mësu koo gis wàjji loolu mooy li ci nekk ah laaj ko xaalis Moustapha Cissé laaj ko ko moom xam na loolu ma xam ne El Hadj Ndiouga sama goro la parce que doom yaayam sama cousine la te xaritu Nafisi Nafsatu sama bos doo bokkal ndey bay ñoo daan ànd ñoom ñaar Fat Cissé ak soxna Nafi benn lañu dama leen daan wax bu kii na dem ba ak bi kii ci des topp ko ndax ñoom ñaar bët mënu leen woon xool ndax taar yàlla xam na ko waaw soxna Nafi nag dafa gaaw gaañoo wallaay ma nga gaañoo kaw la maag moom bokk ndey bay waaw waaye xaritu benn bakkanu Fat Cissé la te Fat Cissé jur jabaru ñu nga këbi moo tax nga xam ne nit ñi li ñoo xamuñu ko dañu dof dañu dof moo tax allah ji juga waaye projet bi ma mujj wax daf ma ni bu ko kenn yëg fii lañ koy defe waaye bu ko kenn yëg man ko xam nga boo bañee nit yëg ko nanu yóbbu siège ba ca àll ba à l'extérieur ko moo ci gën bu ma waxee rek mu ne ma discrétion de parce que nit ñi fii baaxuñu discrétion de discrétion de cheikh discrétion de discrétion rek la dégg ci tubaab na paase yàlla xam na ko ma ni koy yow ak Alaaji Maxtaar Baba ak man ñoo gën a dégg tubaab ci Ndakaaru dafay ree ba tëdd ci suuf yàlla xam na ko bu ma gisee rek ni ma war lu may joxe addiya tey ma ni ko yaa xam ne wallaay ndeysaan Ousmane nag waxe noppi Ousmane moom suma lépp la te mooy rakkam waaw Abdou Diouf nee na ma bés mais Cheikh gis nga photo bi nga bokk ak Ousmane ma ne ko ci lu demee nag mu ni ma dama doon inauguré benn exposition photo gis ca benn photo boo ànd ak Ousmane Kébé ba ma juddoo ba léegi mosuma gis photographe te noonu wallaay ndeysaan pour wax la ne nit ñi yi ñuy wax yëpp ay enfantillage rek man maa la ko wax ay enfantillage rek du ñu wax lu ñu xam mukk du ñu wax lu ñu xam mukk du ñu wax lu ñu xam du ñu wax lu ñu xam yàlla xam na ah yooyu moo fi nekk yooyu moo fi nekk tabarkal tabarkal Alaaji Bekaay Sekk noonu la meloon ci man tabarkal la ma nga ca Ndar dafa niroog maam Abdou Cissé ba da ngay defe ay cheikh lañu tabarkalla seen bëjjaaw dafa mel ni xaalis seen bëjjaaw dafa mel ni lumière yàlla xam na moo tax soxna mu gol som bu sëñ kër si ni ma waaw Cheikh bëjjaaw yu njëkk yi lu tax niroowul ak yu léegi ma ne ko parce que bëjjaaw yu njëkk yi ma ne ko leere ko laloon waaye léegi yu léegi yu suusee ko la <laughs> ni ko loolu rek la du leneen te boo ci gis defe ni dañ ci dañ ci tëfli póon wala détail baaxul baaxul mukk yàlla xam na ko yàlla xam na ko ma xam la souci yi dafa bari kenn mënatul faj sa soxla nit ñaa ngi bëgg a taskare yàlla xam na ko moo tax béjaaw yi ñuy am kenn xamul la walaay ndeysaan walaay ndeysaan tabarkalla tabarkalla yooyu rek a fi nekk ñu di ko jariñoo ci biir di ko jariñoo ci biti nag loolu la yàlla dogal bu ko defee xale yi nag ñoom ñoo nekk ci daayira bi di samay sët di taalibu Serigne Moustapha mii ak di tabarkalla doomu Pape bii ñuy doomi góor ñoom ñëpp tabarkalla ñoo ma waxoon tey nii naa leen invité yéen ñëpp ngeen ñëw màggal di yonent bi waaw kon nag loolu li ci Maodo waxoon rek nee na guddi gi yóbbu na weer wi nee na weer wi yóbbu na at mi yal na yàlla barkeel yëpp ndeysaan yàlla barkeel yëpp loolu rek mooy li nga xam ne moo ci ne waaye man dama jaaxle fan yi defoon naa duma mën ñëw sax ndax dama feebaroon laaj laaj ko sëriñ Moustapha dafa mujj ni ma góor gi dinañ la bàyyee nga dem wallaay ndeysaan moo tax ma waaye loolu bés bu ne góor gi def ma ko bu ma demee ba ni duma man rek mun maa ci boo defee def na ma ko bés boo xam ni keroog dama waaru mooy bi may dem kër Alaaji Cheikh Diop bu Ndoomoor ca jumaam ja kuwaate kat mi nga xam cardiologue ni ma booy dem di des ci yoon yi wallaay ni ma bul dem mukk parce que sa kër nangam nangam sa kër nangam waaye ma xam ne Alaaji Cheikh loolu bu ma ko ko defee àdduna tukki wallaay ndeysaan ndax tabarkàlla dafa am bas-bas te nit ñi la tabarkal la fa am pas-pas ma ni kon nag nu ma man def naa dem ba ci yoon bi boog bu ma kër bi jàppee sama fu ba damay dem ndeysaan ñëw sukk ci photo góor gi ma ni ko maa ngay dem kat naa duma dellu si <laughs> ndax loolu la ma cardiologue bi wax wallaay ndeysaan waaye ma ñëw ba jub dëkk bi rek tabarkal la yëgatuma dara yàlla xam na ko ma ñëw ba jub dëkk ba rek yëgatuma dara loolu la yàlla dogal tabarkal tabarkal ndax ñooñu borom pas-pas lañu mën am lu mel noonu ci sëñ Babacar maa la ko wax ba ma cay dem nag wala ba ma dem ca tey ba euh, sëriñ sëriñ ni wax leen ko ñu ko na jaar ci village boobu mbokki Baay Faalam yi nekk ndax dañ koo soppa de dafa jaari te bu fay jaar na sol mbaxane laa fa bu ñuul daal di jël rek sama mbax ne laabu gu ñuul moom rek lay sol foofu benn yoon loolu am na pour wax la ni mag ñi rek a fi nekk keneen nekku fi waaw mag ñi rek ñoo fi nekk keneen nekku fi tabarkalla yal na yàlla yàggal seen barke ak seen leer ci suñu biir loolu rek mooy li am solo tabarkalla yonent bi kenn mënul jaaxal affaire kenn mënu ko tabarkal tabarkal la affaire am kenn mënu ko jeexal waaye rek lu ñu ci sàggane ñu won ko ساقني وعي بروم بي ko sàggane ولذلك خلقهم جاتخ ولذلك خلقهم جاتخ وتمت كلمة ربك إنهم يلو مسل في جهنم تيلنا يلو يبو الجنة تبارك الله درجة يرد وإجانا من باخو المك إنهم يلو مسل dañ ci yàlla musal yàlla ku mu jéppi rek la fay yóbbu waaw yàlla mu yi mu wax ci aljanna yëpp sëriñ su nee na ma bés euh, fia sururu marfuha wa akwabu mawdua dafa mel ni ñi ko deful dañuy defe ni yàlla dafay nos noos loo nit ñi waaye mu ni ma dafay xuloo ndax booba dafa fekk ñiy jaamu xiram di gaaral yonent bi naan ko sunu xërëm yi li mu nuy may nangam nangam yàlla ni mayit am naa sururu marfuwa wa akwaabu mawduwa wa nabaariqu masfuufa wa zarabiyyu mabsuuta mu ni lool rek la mu ni lool rek la du leneen waaye yàlla du woote noos mu ko talu ko sax dëgg dëgg du woote noos mu talu ko sax kon nag yal yàlla sàmm ñëpp tabarkalla ñu ngi gërëm it suñu mbokk sécurité yi ñu baax lañu waaw suñu mbokk sécurité yi ñu baax lañu dama amoon benn turandoo Cheikh Tidiane Gaye noo bokk bés bu ñu ganee àdduna moom it ñu tudde ko moom sama turandoo papaam ku tëxatoon la mu nga waalo tabarkal tabarkal dafa tëxat sax lu ci àdduna moo ma doon wax affaire euh, euh, bërikatu làmb du nu mu tuddati fàtte naa turam wallaay tudd Bakar Saar wallaay dëgg dëgg yow yaa ko xam fekk ñuy waxtaane kilifa guerre yi tabarkale deuxième guerre mondiale soo fi soo fi ba mu ne ah am am na ko ngee fàtte day ma ne ko kan la mu ne ma tudd Bakar Saar ma ne ko yow waxuñu waxu lamb mu ne ma ah si benn la rek waaw mu ne ma bële dafa faat bakkan bi dafa tëj ci yaram ndeysaan waaye dafa texe nitu nitu sécurité yi li nuy daj ci ñun yenn yàlla fay leen ko ci yiw waaw ak dañuy sonn sonn sonn te loolu jihaad la jihaad la fi sabilillah jihaad la fi sabilillah waaye la mu waxoon la Cheikh Gaye waxoon ni ma wax kii kéegin moo dakkan ci ci ci alkaati yi chef d'état-major général lay wax kat wallaay tëxët ba dof rek ni ma kii gën moo dakan ci alkaati yi ma ko kii mooy seen maggu kër mu ne ah waaw kay waay kii de ku siluise la waaw ni ma ndax ma médaayam ya tuuti yi mu taf ci dëndam bi bët soo du ko gis te bu doon sunu dëkk yi ña fa jógee guerre ba yëpp seen médaille nañay la toll te dañ kaa takk moo lank dafa tëxët ba nga di dil mu noonu tabarkal la tabarkal la ah. loolu rek mooy li nga xam ne moo ci nekk ñu bokk ak yéen lépp ci biir ak ci biti dañuy dañuy sonn ci nit ñi tabarkale nitu sécurité yi li ñuy sonn yal na leen yàlla jàppale waaw ah, yal leen yàlla jàppale tabarkal la tabarkal yàlla jàppale leen loolu rek mooy li nga xam ne moo am solo kilifa yi ñu am itam ñu am sunu àdduna bi mu ngi leen di ñaanal jàmm jàmm xol surtout jàmm xol te itam rek ñu bàyyi xel ci seen bopp ndax bàyyi xel ci seen bopp nit du weddi boppam naka ni daaw laa ko fi waxoon du ma weddi sama bopp man li ma leen yéene mooy rek ñu am jàmm te nit nag du weddi boppam loolu la yàlla dogal yéene naa leen ñu am jàmm parce que dama xam jàmm ji lu mu doon.